asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal moo dellu si di leen siyaare bu baax di siyaare mboolem kuy topp Fall 94 Walf Sénégal ñu ngi siyaare Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ko ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp ak mboolem xalifa généraux yi nekk ci biir Sénégal gi yëpp ñu ngi siyaare mboolem kuy topp. Fall 94 Walf Sénégal di leen jaajëfal bu baax nag di jaajëfal bu baax sunu mbokki sénégalais yi nekk ci diaspora bi partout daal le monde yaakaar naa ne ku lim da ngay jum diaspora bi moom sénégalais yëpp gis nañ taxawaay yeeg yëpp yaakaar naa ne nag euh, victoire bi dañ koy ànd ak euh, ñoom ñëpp ñi nekk ci diaspora bi di wax ni fàttewul leen benn yoon di wax ni développement Sénégal rek ca kaw ca kanam rek nañ jàpp te rek incha allahu rabbi lépp baax bu ko defee lépp incha allahu rabbi euh, képp koo xam ne rek yaa ngi ci diaspora nga mën a ñibbi ci réew mi di gis sa bopp ci réew mi yaag sa njaboot te incha allah yàggutul léegi rek mu am kan victoire dafa neex victoire euh, dafa nekk loo xam ne ni wax dëgg yàlla ku ko dundul rek mënoo koo xam man tey laa xam ni Coupe d'Afrique ndekete euh, jël ko nii la neexee tey jii maanaam yaakaar naa ne biir Ndakaaru fépp régions yi roq-roqaat yi fépp foo dem ci Sénégal ñëpp ñoo doon feetoo victoire bi am na ñoo xam ne sax dakaar la dem ci capital ba yaakaar naa ne aéroport tey dafa feesoon dell gàll ba nga xam ne ni nit ñi xàmmeetun sax ci naaj lañ nekk wala ci ker lañ nekk loolu li ko waral mooy victoire te wax dëgg yàlla lii day ndam loo xam ne nii euh, dafa jot sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk waaw li ci des nag mooy ñu àndal rek bokk ndey bokk baay wax dëgg yàlla di xàccandoo di tuurandoo vraiment yaakaar naa ni eh, Coupe d'Afrique yaakaar naa ni ñëpp ñu ko yéene ndax yaakaar naa ne ku dem ci Twitter wala nga dem ci Instagram wala nga dem ci Facebook yaakaar naa ne gis nañ fi ñi nga xam ne nii ci plan football ñi nga xam ne nii ay sportif yu mag lañ ñu ngi bind vraiment di bind di saluer Sénégal di leen jaajëfal di leen remercier ci euh, CAN bi di wax ne dañ ko mérito wax dëgg yàlla loolu yakaar naa ne ñëpp xam nañ ko moom. partout dans le monde kan nag euh, li ci des mooy ñun ñi nga xam ne nag ñoom ñoo moom victoire bi nan la ñuy téye victoire bi ak nan la ñuy àndaate gaynde yi jàppale leen gunge leen ba sunu match barrage bi ak ñoom ak ndax da leen di jaral lu nekk lu leen jaral nag ñu ko jaral ñu taxawaar rek fas yéene jàmbaarloo ak ñoom pour dem nag ca mondial ba xale yi ba léegi na leen di poussé di leen jàppale bu baax a baax a baax a baax ay victoire victoire victoire incha allahu rabbi kat na suñ borom mu ngi ñëw ci sunu kanam ginnaaw bu ñu booloo bokk ndey bokk baay ñu ànd liggéey Sénégal Sénégal réyul Sénégal dëkk bu ndaw la dëkk bu ndaw la neex naa liggéey ñun ñëpp buñ bokkee ndey bokk baay ñu defar suñu réew setal suñu réew taxaw ci euh, secteurs yi nga xam ne ni ndaw ñi taxawu ndaw ñi ñu liggéey bu ko defee incha allahu rabbi euh, kenn ku ci nekk mën a gis ci réew mi Eh, sa bopp ba ñi nga xam ne dañoo nekk ci diaspora bi eh, mën a ñibbisi eh, bu ko defee ñuy gis seen bopp ci réew mi bu ko defee nag ñu ñu ñu ñu yor réew mu mu réew réewu développement bokk ci réew développement yi fas yéene taxaw suñu réew fas yéene taxaw suñuy gaynde bu ko defee rek incha allahu rabbi sunu borom danañu gën a defal ndam bu baax a baax di jaajëfal nag bu baax a baax Aliou Cissé Aliou wax dëgg yàlla weeru coach xam nga yàkkamti baaxul bu fekkoon tey dañoo yàkkamti woon jëliwaat ay tubaab indi tey mën naa ne kan danañ fi dàqaat juróomi entraîneur yi tubaab ndax sunu doomu réew la xaaj bi euh, sunu doomu réew lañ ko jox moom lañ koy fay ci réew mi lay desaat xaalis bi ci biir réew mi lay desaat te vraiment wax dëgg yàlla Aliou la te yaakaar naa ne xaalis biñ koy fay ci biir réew mi lay desaat kan yaakaar naa di dem di jëli ay tubaab ak yooyu yëpp gis nga lii day waral ni rek maanaam euh, bu ñu teeyee rek def ndànk rek incha allah rabbi Aliou Cissé dafay indi coupe bi ndax yàgg na ko wuti yàgg na ko yóotu wax dëgg yàlla boobu ba léegi tey nag la ko suñu borom dogal yaakaar naa ni tey nag ñaxtu yeeg critique yeeg yëpp tey ji mi ngi nii ana ñu tey ana ñu ko doon def mënoo leen a xàmmee tey waaw bi ci des nag ñu jëm ci way politiciens yi way politiciens yi vraiment dañuy jiital le président Macky Sall lii nag mooy li nga xam ne nii mooy àndandoo xàccandoo dóorandoo ku ndey boo bokk baay liggéey Sénégal image su Sénégal te Sénégal te Sénégal rek tax ñu bañ a ti parti bañ a xoolati dara ñu woo ku jéggeeg ñëpp ñu seq taabul ñu liggéey Sénégal Sénégal avancé parce que tamit ñun wax dëgg yàlla kenn ku nekk am na koo àndal waaye de wax dëgg yàlla ñun bu nu sañoon yéen ñi nga xam ne yéen ay leaders yéen nekk ci kaw yéen a yéen a yéen yéen a jiite parti yi yéen a war a njëkk a ànd di xàccandoo di dóorandoo bu ko defee ñun day yomb ci ñun boo ko defee incha allahu rabbi sunu yoon day leer yow Macky yow ya nga gën a woowaat gars yi comme ni nga woowee gars yi nii wax dëgg yàlla ñu ñëw euh, feetoo victoire bi nii ngeen feetoo victoire bi mu neex ci seeni xol neex ci gisin neex ci lépp nii ngeen war a continuer ñu liggéey Sénégal Sénégal jëm ci kanam ndax wax dëgg fa yàlla euh, yaakaar naa ne réewu développement yi nii la saa suñ amee victoire wala saa sunu xam euh, bu ñu euh, nekkee ci politique bu ñu jógee ci politique ñun ñëpp dañuy seqaat taabal ñu xool nu ñu liggéeyee Sénégal Sénégal jëm ci kanam vraiment wax dëgg yàlla lii moom dañ koy rafetlu wax dëgg yàlla euh, ñëpp ñëw nañ ci wax dëgg yàlla ku jig yëpp ñëw nañ ñoom Pape Diop ñoom Barthélémy Dias ñoom Bougane xam nga wax dëgg yàlla ñoom Déthié Fall wax dëgg yàlla vraiment ñoom Bamba Fall waaw xam nga ñu ñëpp ñëw nañ vraiment mu nekk loo xam lu am solo la lu am solo mu nekk image boo xam ni image bu am solo wax dëgg yàlla Macky Sall lii moom dañ lay jaajëfal bu baax a baax di wax ni yàlla na continuer jëm ci kanam wax na gis nga xalifa Sall tamit macha allah vraiment mu nekk loo xam daal image bu am solo wax dëgg yàlla nekk na image boo xam ne nii am na solo fi mu boo xoolee ci réseaux sociaux yi internet bi foo tourné yaa ngi gis image yi photo yi vraiment ak vidéo yi kan lii day wane ni Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay li ci des mooy lan mooy taxaw liggéey suñu réew réew mi réew ñu liggéey suñu réew taxaw suñu réew défendre suñuy doomi réew défendre leen indi leen ñu liggéey réew mi ndax ay boroomi xam-xam a ngi fi ñu taxaw ndaw ñi ay boroomi xam-xam lañ wax dëgg yàlla ñu taxaw ndaw ñi jàppale leen bu ko defee incha allahu rabbi lu ñu bëgg suñu réew incha allahu rabbi dafay am kan coupe du monde bii sax ñuy xëccoo pourquoi pas war nañ koo mën a jëli sax indi ndax lan moo tax booloo rek bokk ndey bokk baay moo ne Brésil gi ko jël jël na ko jëlati ko jëlati ko daje na noog ñun dañoo defa ak ñoom niil maanaam exemple lay joxe rek nga xam ne kon ñoom tey ñoom ñooy maanaam ci ci cadre plan football Brésil moom foo foo foo wàññee benn da nga leen euh, maanaam ñoom ñooy ñaareel bi bu ko defee nga xam ne kon euh, euh, lii la ñu soxla ci Sénégal lii vraiment day image bu rafet nga xam ni kon étoiles yi nga xam ne dañ koy xëcc. étoile danañ ci am ay étoile yi étoile yu étoile buñ bokkee nday bokk bàyyi di xàccandoo di dóorandoo te image su réew mi rek tax te Sénégal rek tax ñu bañ xëcc ay partie bañ a xëcc xam ñu teg Sénégal teg image su Sénégal teg Sénégal lépp réalité Sénégal bu ko defee ñu liggéey Sénégal Sénégal jëm ci kanam ndax lii day image boo xam ne kenn dootu ko fàtte parce que lu xas a jàll ci réseaux sociaux yi moom jeex na yaakaar na day doon imance boo xam dafay des ci biir réseaux yi Euh, vraiment Sénégal yëpp salié nañ tey macha allah lii nga xam ne nii moom la Macky Sall def wax dëgg yàlla nag euh, euh, victoire bi nag Sénégal moo ko moom wax dëgg yàlla Sénégal moo ko moom Sénégal oo koy feetoo wax dëgg yàlla nag ku nekk gis na nag wax dëgg yàlla gunge gi nga xam ni gunge nañ ko gaynde yi Cameroun ba Sénégal gi gaynde yaakaar naa ni kontaan nañ waaye supporters yi tamit. kontaan nañ mu nekk loo xam ne ni wax dëgg yàlla ñun ñëpp kenn ku ci nekk gis nga si sa bopp bu baax a baax a baax a baax looloo tax rek saa su nekk ñuy wax ni bu ñu liggéeyee réew mi taxawul réew mi Eh, te réew mi rek tax kenn ku ci nekk Sénégalu lambda beeg ñëpp danañ gis seen bopp ci réew mi ndax ni ñu gisee suñu bopp ci victoire bi noonu la ñu war a gisee suñu bopp ci eh, réew mi bu ñu ko defee rek incha allahu rabbi Sénégal jëm kanam yaakaar na dana bokk ci réewu développement yi ndax Sénégal eh, ñi leen bàyyi xel dafa dafa bari Sénégal ñi leen bëgg dafa bari Sénégal kenn bañu leen ndax dañoo nekk ñu discipliné dañoo nekk ñu neex a bëgg dañoo baax fu ñu dem dañuy xàppi wax dëgg yàlla ñu amuñu complexe ci dara te vraiment fu ñu dem dañuy bokk partout nag daal le monde fu nu dem dañuy bokk te ñëpp dañ leen a xajoo dañ leen a bëgg loolu nag ngalawaay dañ ko war a commencé fii liggéey ko fii bu baax a baax comme ni nii ñu koy defee ñu gën a continuer rek liggéey Sénégal jëm ca kanam wax dëgg yàlla Macky Sall euh, jaajëfal nañ la bu baax a baax wax dëgg yàlla vraiment euh, Sénégal am ndam waaye nag ndam li yaa ngi ko amee ci sag ay wax dëgg yàlla loolu moom euh, ñu xam ko bu baax a baax a baax di wax rek yàlla ci ay ndami ndami ndam topp kat na suñ borom ñi ngi jaajëfal bu baax di cher ñëpp nag